jaajëfal alxaaji Serigne Mbàkke Sylla mi nekkoon ci jataay bi ñaanal ko tawfiix sutura ak teraanga ak projet def dara dém bi njëkk ci jataay bi ñoo ngi woon ci ruuxu siyaami fi islaam ruuxu siyaami fi islaam maanaam ruuxu koor ci lislaam yokk ci koor ci lislaam ñu gisoon démb ne wiqaaya la war a def ci nun te mooy dox suñ digganteeg yi diine ji gërëmul bokk gërëmu ko tey ñoo ngi ci ñaari hadis yoo xam ne bu ci nekk day jëmmal loolu benn bi mooy salawaatullahi salaamu alayhi daa wax ne man lam yada qawla zuuri wal amal bi fa laysa lillahi xaaja fii an yadaa taamahu wa sharaaba nee na koo xam ne kii mënoo bàyyi waxi caaxaan mënoo bàyyi jëfi caaxaan yàlla soxlawul ngay bañ a lekk soxlawul ngay bañ a naan ah ndax sa bañ a lekk yeeg bañ a naan gi daf jëriñul dara xawla zuur ak amalu zuur waxi caaxaan yeeg jëfi caaxaan yi waxi tappale yeeg waxi wagga jaane yeeg yooyu ak jëf yi ne na ku ko bàyyiwul ku ko bàyyiwul yàlla soxlawul sa xiif soxlawul sa mar waaw nga am solo la kon koor ci lislaam ah, koor ci lislaam muraqabatullahi fiihi waaw fuglu ci yàlla yàlla fuglu la ci wala boog yow nga fuglu ci yàlla waaw ndax ma ngay wax naan man saama ramadan iman dana wax ci saaban hadiisu euh, sunu mbokk mële mayoro faal mu ngoog mu ne képp koo xam ne kii woor nga te gëm yàlla tax ak bëgg ca tuyaaba ñu jéggal la say bàkkaar yi jiitu woon koor gi xufira lahu maa taqaddama min zambi ñu jéggal la say bàkkaar yi jiitu woon koor ga waaye xam nga penc mi léeg-léeg nga gis fi gone gu góor gu toll ci denc te amul lum denc gone gu jigéen gu toll ci ñu denc ko te gisul ku ko denc baay nekk ay gàllankoor ca ñee yaay yi nekk ay gàllankoor ca ñee ndax commerce giñ bëgg ci sëy ku góor ki amu ko walla parewul pour def ko léeg-léeg yaayam dox digganteem ak sëy ku jigéen ki it li yaayam def ci li baayam def ci moom ci wàllum njàng jàpp na ne bu ko mayee móor xujja day perte waaw ndax du ñu xool ne illay may gi ñuy may nit lan koy jural doom ju baax jaag yar baag loolu duñ ko xool ñoom li nga defoon ci sa doom ji bi muy jàng rek di ko fayal par weer quarante mille par weer soixante dix mille di ko yóbboo ko indi jàpp nga ne loolu moom daa war a suyëg koo xam ni dafa am tax loolu ci penc bi côté boobu métti lool suñu borom nag ki mu yónni woon ci nun di wax ak xale yu góor yi toll ci denc te amuñ lu ñuy denc benn seen papa gàllankoor li wala seen yaay wala am-am bi leen yonent bi di indil médicament bu leen faj koor la indi bi mu leen di indil médicament <laughs> koor la indi yaa machara shabaab yaa machara alshabaab yéen yéen jeunes yi yéen waxambaane yi yéen xale yu góor yu toll ci ñaar fukki at ak juróom yéen ñëpp yaa machara alshabaab yéen ñëpp man istataa minkum al man istataa minkum albaa waaw ku ci mën a am lum joxe waaw ku ci mën a am lu mu joxe may gu njëkk waaw <laughs> albaa alqudratu ala ziwaaji waaw ku mën a takk ñu ne jismiyan wa maaliyan ku mën a takk ku mën a takk ci yéen fal yatazawaj fal yatazawaj bu mu ko waaj waaw yéen ñi am ñaar fukki at juróom ñëpp ku mën a takk ba mu ko waaj ku am lum def ci ngoro ku am lum def ci ngoro bu mu ko waaj fa ca saase rek falyatazawaj na takk waaw gis nga ndigal loolu bu ko xal bu ko jeunes yi jëfandikoo woon bàyyi bàyyi leen ceeg yaay kon du ñu am indépendance mille neuf cent soixante ba léegi ñu naan ñooñ ci soixante millions ñu ngi ci seize ngeen baal ma nageen waroon na fekk ci multiplier fois quatre waaye fi ne ñi toll ci denc te denc ñu ñi toll ci ñu denc leen te denc ñu leen liy xew foofu ci pénc mi baaxul ci pénc déedéet baaxul ci pénc pénc mi li fii xew mooy li for na xew mooy ku am ñaar fukki at juróom takk ku am juróom-ñeenti at ci jigéen ñu takk la loolu forme xew rekk su ko defee yenn xew-xewaane ci pénc mi bu lépp dañu tit wàññiku ko waaw bu lépp dañu tit wàññiku ko waaw jaaraama péncum laa ñoom foofu moom <laughs> tabarkal la waaw péncum laa léeg-léeg ñu daje rek waaw def benn ziwaaj jimaa jamaa yi bu am solo waaw dan yàlla suqali tabarkàlla kon bi yonent bi alayhi salaatu salaam di indil xale bu góor boobu médicament bi koy faj daf ko sant woor ku man takkal ku mënut wooral ñu ne ko lu tax nga nga ñu takkloo mu ne fa innahu axaddu lil basar ne takk mën naa jàppale ci nit mu yemalab xoolam ci lim am waaw takk mën naa jàppale nit mu yemale ab xoolam ci lim am muy jabar ji waaye ci lim am muy ab am amam mu bokk ko jigéen kii ñuy kor la ko kopp-koppal ba baa ñuy am lu sampe wa ahsanu lil farj ne na teel takk dana dimbale góor ci takk tubayam teel a takk mën naa dimbale góor ci takk tubayam wa man lam yastati fa alayhi bi sawm ku munta takk nag amoo loo joxe euh, ci ci physique amoo mënoo ci alal mënoo mu ne maa ngi lay dénk koor gis nga kon koor moom moo mën a remplacer loolu te foofu ko yonent bi dugal rek xoolal ni mu fa duggee fa innahu lahu wijaa waaw ko ko góor kooku mu bañ a dugg ci yenn yi bu xelam nekkee ci denc te amul denc yaayam seetaan ko papaam seetaan ko mu war benn fan ñaar loola wàññeeku mu dog lekk ak naan ba mu delsi mu wooraat waaw salawaatullaahi salaamu alayhi jox ko jeunesse bi waaw jox ko jeunesse bi ma ñëw ci beneen tomb professeur mooy baadu xikami sawmi wa fawaidihi lenn ci li tax nuy woor wala boog ci xikam yi koor dafa am yu bare bare bare yu ci nekk moom la baatu laalakum tattaquuna tënk ndax attaqwa li ci meññal lépp xajal ci waxtaanu fajar hmm? waaw waaw koor dafa bari lool ay njariñ njariñ yoo xam ne ijtimaiya la njariñ yoo xam ne fardiya la ijtimaay mooy njariñul pénc fardiya mooy njariñ njariñu nit ki moom ci boppam ndax ñun ñëpp ay éléments yi penc mi lañu waaw ay éléments yi mi lañu waaw mu ngoog njariñ yooyu ci penc mi boo cay lim da tàmbalee ci al atfu ala al masakin koor daa war a indi ci nit ki sentiment digganteem ak yalwaankat yi handicapé yi handicapé mooy koo xam ne kii dafa am jumtukaay bu manqué bu ko tee mën a liggéey lum dunde léegi-léeg sax gis ko xam ne kii handicapé la waaye jumtukaay bi ki téewu ko mën a liggéey ñoom sekk ak ñu mel ni ñoom nga xam ne mën nañoo ràbb ay yëf mën nañoo defar ay bale mën nañoo defar ay serviette ak yeneen yiñ mën a def su fekkoon ne réew mel ni réew mi yooyu ñooñu mën a defar kenn du ko jële bitim réew di ko indi xanaa fii lañ koy jënd ci ñoom wala ñu wala ñu forcé ministère yi lu ñoo ñu defar ñu jënd ko dafa am lu muy def ci ñoom def ko ci noonu def ko ci pénc bi malheureusement Euh, lu mel ni ngaay gee boo fa demee nit mën a toog defaru dàll dàll yi ci ngaay ñuy romb nii rek xaw ma informel lañ ko wax xaw ma <laughs> soxna Zeynabu Seck moo koy wax waaw ñu bàyyi ko nii rek mille cent soixante bu ñu amee indépendance ba léegi ngaay di defari dàll nuy dem bitim réew ñun du jëndi dàll bàyyi suñu dàll yi consommé local consommer local waaw ci nga koor bu ñëwee yooyu lay indi miskin du dara lu dul mooy ku mënagul boppam ci mënagul boppam bu koor ñëwee day jàngal nit ñi ñu yërëm ko ndax mu man boppam moo tax waala la si yutixoonu fidyatun suñu doon def caa teg taamu miskin waaw taamu miskin ki mënta woor ndax daa màggat wala mu a war ndaa wéradi na génne fidya comme koy jox miskin waaw tax al atfu ala al masakin daf ci am solo mhm. ndax xiif xiif bu la dalee ci ñaar fukki fan ak juróom-ñeent yoo xam ne bëccëg ngay xiif nga dëkk ak koo xam ne trois cent soixante cinq jours lay xiif yow vingt neuf nga jour ngay xiif moom trois cent soixante jours lay xiif moom xiifam bi saa su nekk mi ngi koy yëg ah, te yow moom benn bis bii rek ci nga ci nga yem waaw donc trois cent soixante cinq jours yi muy xiif moom yow xiifoo dul vingt neuf jours trois cent trente euh, trente six yi ëppalee na la ko ëppalee na la ko léegi nag bu koor ñëwee dafa am lu mu bëgg nga yëg ko ne ah, kon kat kii li may yëg man ci vingt neuf jours moom trois cent soixante cinq jours la ko yëg yaakaar naa ne loolu bu yàggee da nga mën a partager bokk ak moom li nga am hein waaw mu ngoog loolu mën naa jural nit ki raxma euh, yi masaakin waaye su fekkee ne bàyyiwoo xel ci loolu yàlla xam doy na waaw ngoog yërmande googu ci nit ñaare li koy jural nit ci métit lay jóge waaw moo tax sunum réew soo seetloo bëgguñu koy néewal doole nit waaw parce néewal doole nit Euh, métit bi ñu koy teg moo ko jural moom tam leneen moo tax ku ko mënoon doo teg métit kenn ku la teg métit nga muñ mbokk yi koor kon aw yoon la woo xam ne dafay def ci nit ki tarbiya boo xam ne raxma lay doon fi nafsi yërmande jum def ci nit ki waaw éducation bu am solo mooy xëy rek ca fajar nga lekk tuuti bu fekkee doom ndaw ku naan tuuti bu fekkee doom ndaw ku ndaw jëmale la ngoon bala ngaa lekkati jant bee sox nga def ko ñaar fan juróom-ñeent bu bàyyiwul ci yow dara perte nga lu bare bare bare loolu war na bàyyi ci yow bàyyi ko ci nun ñépp waaw bàyyi ci nun dara su ko bàyyiwul rek xiif baag marwaa fa nekk waaw bés boo xam ne diggante alfaqir ak alxani te mooy ki am ak ki amut bis bu seen diggante rattaxee seen diggante jag danañ am lu nekk ñoom ñooñu moo tax sallallahu alayhi wa sallam ngeen dégg ñu naan kaana ajwadu nnaas wa kaana ajwadu ma yakunu fi ramadan waaw nit ñi ci gënoon a tabe moom sallallahu alayhi waaye bu ramadaan ñëwaan ci lay gën a tabe nit ñi moo ci gënoon a tabe waaye bu ramadaan ñëwaan ci lay gën a tabe lan mooy tabe mooy joxe mooy joxe léegi nag bu ramadaan ñëwee ci lay gën a tabe mu tax am na ñu ko ci jéem a roy bu ramadaan ñëwee waaye moom xam nga nit ku taxaw maye fanweeri gëléem ñun fukki gëléem téeméeri xar ak yu demee ni yooyu boo ko tab moom macha allah waaw ngoog noonu la tawee woon penc mi nag fi ne bu koor gi ñëwee dëgg la nit ñi góor lu it ñu bàyyi xel ci tab googu nit day tabe bu koor gi amut bu koor gi amee mu yokk tabam waaw yokk ak tabe ak tabeem di joxe waaw ah, yàlla nu yàlla dimbali mu ngoog mu ne kon xiif boobu nga xam ne moom la alayhi salaatu salaam xam ne nit ñaa ngi koy xiif moom mu tabe ba nga xam ne dañ ne daa teboon ba mel ni ngelaw waaye bu koor gi ñëwee nag tab ga yokk yàlla nay koor mën a def ñun loolu ñu ñu ñàkk woor tabe koor gi ñëw ñu gën a tabe waaw bokk na ci li koor di def si al musaawaat bayn al axniya ndax bëccëg bi nga xam ne ci la ñuy yendu handicapé beeg miskin beeg saqir bi kenn du ci añ waaw man juróom benn fan a ngi nii jàpp juróom ñaar añuma <laughs> añuma imaam Ablaay ndawit añu kon maag ndaw ku ndaay ñoo bokk yem képp ñàkk añ ki am ay million ak ki amul lu mu ndogoo tey walla lu mu xëdde ñoom ñëpp kenn du ci añ waaw fi la ñuy jéggi añ yi loolu di koor di def mbokk yi buñ ko mayee xel may ko nopp seytaane ñàkk fëkk sunum xel loolu daañ xam ne nizaamun amali min aqwa wa abdaa il anzima al li taxoon gaañ def seen seen social social dëgg fii social dëgg fi la yem te mooy penc mi miskin ak faqiir ki am ki amut yem kepp xëdd ndogu waaye añ amut ndékki amut ki am ay million léegi sax gaa ñu romb nañuy million ki am ay milliards moo ki amut lu mu reere ñooyam képp kenn du ci añ ci ñoom ñaar moo tax ci pénc mi social gi waaw jara bàyyi xel ndax loolu kudul borom bi mënoo ko amoo ko sañoo ko waaw ndax koor faqrun ijbaar yi la ko gaañi di tuddee faqrun ijbaar yi maanaam ñàkk guñ la forcé la ñàkk guñ la forcé waaw neex naqari doo añ tey boo amee million doo añ boo amee milliard doo añ boo amee añ ak boo amul añ doo añ tabarkal waaw lu rekk la lu am solo la mbokk yi moo tax faqaru googu ñu la forcé def loola ko mooy jéggi sa añ bi te doo añ te mi ci kër gi eh, mu am beneen tomb bu koor di def mooy idaafu sultaan al aada nit ñi ñu ëpp ci ñoom dañoo am ci dee sultaanul aada maanaam aada ju ñëw góor ci sa kaw danaa ko waxoon naa ko tuxkat ba nee na ker la bàyyi tux ma ne ko da woor ba ngoon nekk Tuuba nekk Tuuba benn cigarette na la tux ma nga ne ko fii ñu ko fi tere muy la kaañ dem Mbàkke cigarette na la kaañ dem Mbàkke nga paax ci oto dem ba Mbàkke ne ko tuy ñu bisuwaat Tuuba kooku xam nga ne <laughs> yàlla nu yàlla dimbale mbokk yi bind bi jeexul ñu ak suñu koor yëkkatee di ñaan jàmm ci réew mi ak réew yi ko wër bu leen neexee ci kanam tuuti ngeen woote ci 88 628 98 98 ngeen bës 2 ci suñu jotaay bi nga xam ne day am lundi di am mardi jotaay bi 8 heures lay tàmbali du heures lay jeex 88 628 98 98 jërë ngeen jëf sunu mbokk yi xëyee ci xibaar yi ñu ngi ni taxaw yor seeni i këyit bëgg la na fàncal xibaar